bismillahi rahmaani rahim ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi di toog fii ci kër gi tey di waxtaan ak uh, Sénégal yëpp eh, ci li nga xam ne ci lañ génne muy élection yi passé dimanche bi eh, di massaw ñëpp coono surtout coalition Benno Bokk Yaakaar ak ki nga xam ne mooy njiit bi muy président de la République président Macky eh, di leen ndokkeel itam ci ndam yi nga xam ne provisoirement amagum nañ ko di ko gën a ñaax cine ne réew mi ci loxoom la ko yàlla teg li ci diis ak li ci oyof ak li ci dëgër ak li ci neex ak li ci naqadi yëpp ci loxoom la ko yàlla teg di ko yokk courage diko ko ñaanal yàlla yéene yi nga xam ne am na ko ci Sénégal yàlla may ñi bañ am xol buñ muñee am xel yuñ déggee ba mën a accompagner loolu ba mu àgg fi mu jëm gannaaw loolu fii ci département bu Kaolack comme élection départementale lañ nekkoon dañuy gërëm d'abord madame le ministre Mariama Sarr mi nga xam ne moo doon coordonner benn Bokk Yaakaar fii di nuyu monsieur le ministre Mohamed Ndiaye Rahma di leen gërëm ci seen taxawaay ak seen assistance ci ndimbal yi nga xam defal nañ ko euh, responsable ak militant yi pour faciliter leen tâche biñ doon def di ndokkeel itam tête de liste yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci liste Benno Bokk Yaakaar euh, muy DG bu Senelec di Pape Mademba bi tey ñu ngi koy ndokkeel ñu ngi ndokkeel itam suñ doom suñ jigéen Astu Njaay bi nga xam mooy maire Njaafat nga xam ñoom lañ tànnoon Eh, jiital leen ba yàlla may ñu ndam ci département bu Kaolack di leen ñaanal yàlla bu ñu àggee assemblée incha allah yàlla may leen gis-gis yàlla may leen xol yàlla may leen itam xel boo xam ne danañ ci mën a remplier li nga xam ne moo taxoon ñi tànn leen di gërëm nag Kaolack yëpp parce que yàlla may na ñi ñi dem ci élection yi ci jàmm te ñaanoon nañ ko ñëpp muy camp bi ak camp bële yëpp ne leen élection yi passé comme Nico président waxee sànq élection yi dafay jeex Sénégal reste du Sénégal élection yi dafay jeex mbokk gi des fi di mbokk gi élection relation il reste nekk fii kon nañ ci dem dans jàmm eh, ku yàlla may ndam nga xam ne may na la ndam ku mayu ndam nga xam ne yàlla loolu la dogal nga muñ ko ba benen chance buy présenter wu ci sa kanam di profito également di gërëm mboolem association yi nga xam ne fii ci biir Medina buñ leen tuddee dañuy bëri waaye ñoom kenn ku nekk ci ñoom recevoir nañ la fii ci kër gi wax ak ñoom ñii am na fuñ nekkoon ñii am na fuñ doon yëngatu ñu ñaan leen ne leen ñi ñëw jàppale list bi parce que eh, ci la jàmmi Sénégal nekk ci la sécuriser Sénégal nekk ci la stabilité nekk ah yàlla def ñi ñëw uy suñu ànd ñun ba yàlla wan ñi ndam li nga xam ne génn na ko kon ñoom pour bañ leen a cité muy association yi fi jaar yëpp ñu waxtaan ak ñoom fii ci kër gi durant campagne bi ubbeeg léegi ñu ngi leen di gërëm ci suñ tur personnellement ak ci turu dëkk bi parce que dëkk bi boromam moo ko sàmm moo ko sàkk fàkk ko dëkk fi ak ay nit ñeneen nit ñëw dëkk si fekk le ko fii ci dëkk bi dëkk bi dafa war a nekk ci jàmm dëkk bi dafa war a nekk ci li nga xam ne moom la boromam sampe woon dëkk bi moom ñaari principe loo xam mooy dund fii ci dëkk bi mooy ndaw yi nañ respecté mag ñi mag ñi nañ yërëm ndaw ñi ñi fexe ba kenn bañ a wàcc ñaari principe yooyu nangoo am kilifa nit dafay am kilifa moo xam mag nga moo xam xale nga mënoo ñàkk kilifa parce que boo ko ñàkkee rek seytaan yi nekk sa kilifa kon ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo waroon candidat yi di leen euh, conseil ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom di gërëm itam chauffeur yeeg ñooñu nga xam ne ñoo doon conduire candidat yi durant campagne bi yëpp ak sécurité bi àndoon ak ñoom ñi ngi gërëm itam responsable yeeg militant yi nga xam ne ñoo doon dalal candidat yi ci seen quartier yu wuute ak ci seen place yu wuute ci sortie yi ñu def yëpp ba yàlla may ñu ndam fii ñi ngi ñaan yàlla nak ci fin bi yàlla dalal Sénégal may ko muy réew mu stable yi nga xam ne ñi ngi koy ragal ci Sénégal yàlla bu ñu ko yàlla won yi nga xam ne mu ngi menacer Afrique de l'Ouest yàlla na ci yàlla épargne Sénégal li nga xam ne ci xel la nekk ci nit yàlla na ko yàlla may Sénégalais yëpp ba nga xam ne dinañ mën a gis ne dogiti suuf bi di wax Sénégal bi yàlla di séddale suuf si ci àddina yëpp bii la sedd nañ fexe ba buñ ko yàq ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.